waaw fii ñu nekk nag mbokk yi mën naa wax ne allahu akbar kabira ñi ngeen gis ñuy jàkkaar lool sama cameraman jël leen bu baax a baax gis ngeen sëñ bi toog mi ngi noonu gis nga fii doo digg benn bruit bi toog ñëpp ay mbuuma lañ di jàng sëñ bi di leen jàngal moom tamit am mbuuma la allahu akbar kabira waaw gis nga kee bind ci palaat bi li muy jàng moom day tari ne maa allahu akbar moom day tari gis nga ko mi ngi ne di tari bu tari day bind nii subhanallah macha allah gis nga kii day bind mathalan dhalla wa huwa kadhim macha allah gis nga ko daytari nii subhanallah Habib salaamaaleykum subhaanallah mhm, mhm, mhm. turam lay bind dañ ko laaj nu mu tudd bismillah mbindam mi subhaanallah Habib Diop nee na Habib Diop la tudd ibnu Serigne Hamdi Diop macha allah kañ la moo ko alquran wala loolu moom. Hmm? deux mille treize mu ne la moo ko alquran mbokk yi gis nga macha allah lii di wax dëgg yàlla kenn mënu ko misaal. laa ilaaha moom mi mokkal alxuraanu karim beq ko ay yoon yoon bind ko te gis nga ndeysaan kii ñu gis da doon tari xale yi yëpp te moom moo bind nekk ci aliwa yi yi li ci nekk yëpp moo ko bind moom mi toog macha allah di wax ne Touba gi nii fii mooy Touba Touba waaw Serigne Touba moom macha allah la mu doon wax ci alxuraanu karim waaw weddi gis bokk ci daal olof dana ne tëngalo du teew ñuy nataal li nañ xool ba xam du mën a amul waaye nag nañ xool ba xam fees koy di gis yaakaar naa du bari macha allah. bismillahi rahmani rahim. allah kon mbokk gis ngeen image image yooyu ñu leen wan ci biir daara ji mu nekk liggéey boo xam liggéey bu am solo gis ngeen gone yi moo ko alxuraanu karim macha allah gis ngeen ñiy beqi ak seen njàng xam-xam gis ngeen fi mu gis ngeen tamit soxna yi macha allah gis ngeen tamit suñu mbokk moom nga xam ne mooy mbuma bi gis ngeen ni muy jàngalee gone yi ni mu toog ak gis ngeen ki nga xam ne mooy tari gis ngeen ni ko laajee turam noo tudd mu bindal ñu Habibullah ibnu Hamdi Mustafa Hamdi Mustafa gis ngeen ni mu ko bindee macha allah waaw te loolu daal wax dëgg yàlla lu yéeme la loolu moom wax dëgg yàlla lu jara kii la moom mbokk yi nga xam ne ñoo koy seetandal xam naa la bu ñu paree moom Rafah TV danañ ci boo xam ne moo xam ne àgg na fii te mënut a wax mënut a dégg ñu fexe ba mu xam daara ji incha allah ñu fexe ba indi ci njaboot gi. si ñaam di mbokk mi nga xam ne moom la ñu wax Habibullah muy sa doom coono yi nga jaaf kii jaar ak moom ba àgg fii tey mu bind alxuraanu karim nga xam ne nee nañ beqi na ko ay yoon yoon mu boole ci bind ci kaamil. moom moom moom istilaahaat bi nga jëfandikoo ba mu xam ne xarafu xaa mooy xarafu xaa ba nga xam ne tey jii bi koy laaj turam mu mën a bind noo noo tudd mu ne Habibullahi gu leer nañu la bind daal def ibnu Hamdi Diop. <laughs> laaj bu am solo waaye li ma la wax léegi dama ne. Ah, subhanallah dama wax ne man gis naa ne. Mhm. Eh, nii seen bopp dañoo war a yokk seen itte. Mhm. ndax suñu borom ay kéemaanam dafa bari. macha allah. Eh, ay mayam it bari. Mhm. doomu aadama it li ndax eh, li may tënki lool nga ay ma am ak jotom. tàmbale woon naa liggéey ci moom ji maanaam mu ñu jàkkaarloo nii rek. may wax. pour maanaam li muy wax. man tàmbali naa liggéey moom ci loolu loo xam ne xam naa bu ma continué woon dara dara sotti waaw fi nga jaar ak moom kay leneen loo ci def macha allah sama jot moom ko mën a may waaye xam nga même kii baa naa wax xaraf yi buñ ko jàngalu du ko a ma xaar koo xam maam bu ñu la ko jàngalu taxante la ko du du du sot du ko xam wér na moom mi nga xam ne mënut a wax itam mm-hmm. gannaaw moom day xool ak bëtam rek mm-hmm. eh, nga teg ci xaraf yi eh, araf yi boo xisee xàmmee araf yi rek mm-hmm. eh, jeex na maam moom te ñoom seen xam dafa dafay xaw a wuuteeg sax kiy wax macha allah ndax lépp lu ñu xam ñoom xam googu day des ñoom day yeex mu day yeex yeex dañ tabaarakallah ne ci ñi topp kaamil yi ñuy bind daay ci la bokk waaye ci ñi gën a ñëw la bokk ndax daanaka moom li muy xam genn xam lay doon subhanallah ndax moom bu ko xëlee capté rek eh, fi mu ne yéen ñi toog nii fi mu ne ku ci nekk bu ma kii sax Basiru Mbay mm-hmm. la tudd kii Mor Faal la tudd kii Abdou Moussa la tudd mm-hmm. benn yoon nii fi ne fu ngeen dajeeti bu ñu ko kii mu bind sa akbar te loolu bu doon man miy wax du ma ko mën a gaaw a jàppe mm. kon dañuy wax suñu borom moom eh, ak ak mayam dafa yaatu. macha allah nga xam ne kaamil yi ñu bind ci daara ji moom bokk na ci ne moom moo ci gën a xereñ. macha allah ko jox ab xaajam. nga xam ne bii ñu bii moom moo ko bindal boppam ci loxo boppam te mooy ñaareelu kaamil. bu njëkk ba yàlla dafa dogal bi mu ko tàmbalee. Mhm. sëñ Muntaxa dafa ñëwoon ci suñ sama benn kër sama benn mag. jumaa ju ñu mu doon ko seet mhm. eh, ba mu ñëwee nag ma jox ko addiye kaamil bi alxaan bu ñu bind ci loxo ba noppi nag wan eh, nuyoo la ko abib mii mhm. ne ko Habib mii sama doomal day bind kaamil. Mhm. mokkal na booba day doog a tàmbali booba kaamil bi waskurool toll. waaw ndeysaan suñ def ko aar lool mu yéem ko lool. Mhm. ñu ba mu yàgg bi mu dee bay bëgg a dem mu wakk loolu si mën taxaa bu may dem nga mame ci eh, mbindu ayub moom lu man la a weesu lépp ko def jox benn yoon <laughs> jox ko macha allah mi moo kayit boobu itam ba mu bindee ba mu àgg mm. eh, la waaye dama ko fekk njëriñ dem ko ko macha allah waaw ah, ndeysaan ba léegi mu ci mag mi ngi maktab bi maktab dër mi nam boobu nga xam ne da ko jox la mu jotoon a bind mu tàmbaliwaat te ba mu bindee kaay ba noppi nga wëlbatiwaat nga joxaat ko sëñ bi macha allah tabaarakallah macha allah loolu lépp ak may macha allah si yam xam naa waxtu bi. yéen ñi bëgg xibaar yi fi ngeen ko mën a amee ci Info 7 TV